un certain moment il faudra que les leaders là ku nekk jël prendre conscience parce que Ousmane Sonko s'il veut être président de la République a doon président de la République moom je commence par lui moom il aura besoin des voix de Taxawu Sénégal de de Khalifa président Khalifa Sall comme je le souhaite d'ailleurs bu bëggee nekk président suba suba il aura besoin des des électeurs de de de. la cassure est trop profonde. oui mais je le dis. moo tax il faut vraiment le, le, euh. et contrairement à ce que les gens disent là c'est un mensonge il y a personne qui gagne les élections au premier tour moi la chance gis sondage yi fi am y compris seen propre parti yi xam naa sondage yu def xam naa résultat yi nekk ci seen biir sondage xam naa chancelier yi xam naa entreprise yu fi def ay sondage xam naa lan moo fi nekk personne aujourd'hui defu fi 30 pour cent de l'électorat si yan si mais je te le dis là si. nag kenn moi vu des sondages très crédibles avec plus de 40 pour cent euh, de résultats pour une coalition y en a pas. je te dis 40% de l'électorat pour une coalition. non non je c'est pas c'est pas une victoire assurée. au premier tour non non non attendez attendez. si non attendez attendez non ah, ah, se passe là. aujourd'hui ki jël paie ci sondage yi c'est le tout d'indécis qui est à 34% moo tax d'ailleurs je l'ai dit récemment à une émission j'ai dit nañ publier leen résultats yi ñi am résultats yi ma lay wax nii nañ ko génne dem publier ko Belgique c'est pas interdit de publier en Belgique fii lañu interdit publication. ñoom ñu am résultat sonal nañ ko def et kin ma génne nañ ma wax ne si bi mooy seen échantillonnage fii lañ ko defee telle agence moo ko def il n'y en a pas amul benn sondage bu fi am benn yéen dafa am benn flottement boo xamante ne kenn xamul woon kan mooy niveau wu niveau kan mooy nekk candidat ak kan moo nekkul candidat c'est en ce moment là qu'il y a eu un flottement boo seetee sondage yi ngay wax noonu y a des candidats qu'on a retirés sur le euh, sur sur sur le can sur le candidat. c'est ça la amul woon a deux candidats exactement bu ñu ko defee boo ko seetloo d'ailleurs. au même moment le taux d'indocilla dafa gën a yéegaat c'est pour ça que sondage bu ñu naan 40 pour cent je sais bien de qui tu vous en